sàcc gu metti am ci Touba ci marché Ocass ci wetu fi Mbàkke Touba yi di taxawee ci palaasu Saliou Diop di jaaykati si bu mag la ay defkatu ñaaw teef songu ah, waaw ñun daal ñu xëy nañu ba wàcc mais après ci suba gi noonu ñëw di ubbi si fekk ñu dajji place bi bunt yi moom dañoo ñëw kànnaar dañ koo dagg waa dañ koo dagg we kànnaar yi ñu dagg ñëw yëkkati porte bi yëkkati porte bi waaw ñu ko daajee ñëw nañu euh, fekk nañ bagage yi ñu defoon fii waaw ay yooyu jël nañ ci lu bëri moom lu xaw a takku. nag ca ba muy xew guddi woon na lool bu ñuy sukkandikoo ci borom place bi fekk fa kenn ginnaaw bi ñu duggee ci place bi ñu ma ko mu toll ci juróom-ñaari millions yu rek. waaw bëri na de bëri trop parce que bañ ko xaymaa ci ma rek li gën a ndaw euh, xayma nañ ci million millions 500 te bokk ak ak euh, wecc di nekkoon ci comptoir bi ak yooyu comptoir bi. tissu lañ jël même xaalis jël nañ ko fi mais mooy comme wecc ñuy bàyyi ci comptoir bi buñ dee wàcc. waaw même yooyu jëlaale nañ ko. moom saali Diop reewul mi ngi ànd ak yàlla te nangu dogal réewul nag def nañ déclaration di xaar lu leen yoon may ñu jël. waaw def nañ déclaration waaw bañ xëy waaw xanaa kii rek wax dëgg yàlla xam ni ndogal la daal waaw xëy na lu waroon a am na rek waaw mais ñu ngi ci daal incha allah. waaw comme que ñun moom ñëpp ñu fi nekk ñëpp benn lañ wax dëgg yàlla waaw ku nekk métti na la moom ku nekk am nga am nga naxar waaw. waaw waaw waaw def nañu plainte waaw incha allah daañu ko topp moom ba ba ba ba li ñu yoon may daal. xeeti jong yu ni mel nag bari na lu ñu koy nemmeeku ci dëkk sell bi di Touba loolu doon ñàkk kaaraange ci nit ñi ak alal.